naaw bu mu toogee lu yàgg kenn déggu ko parti bii di ànd jëf PADS authentique fas nee na jugaat Landing Savané ak ay ñoñam lañ bëgg rek mooy gën a booloowaat ak taxawal parti gauche yi. suñu parti mu ci biir CDS. CDS kuréel la boo xam ni dégg nga ay parti yi nga xam ni parti de gauche lañ parti de gauche yooyu nag ñu ngi waxtaan suñu parti mu ngi ci biir daañu wax tamit naka lañ ci mën a doxi kon naka lañ mën a def ba nga xam ni daañu mën a defaraat parti yooyu daañu mën a defaraat suñu biir. lu jëm si wàllub situation politique actuelle réew mi seen bureau bi fas yéene na amal ay wax ngir li ñuy tiit bañ am. seetlu tamit que euh, réew mi fi ne. dañoo xaw a tiit ci problème yi nga xam ni contradiction yi nga xam ne am na diggante opposition bi ak pouvoir te ñun nag suñu parti ànd jëf dégg nga daañu ci a taxaw bu baax a baax ba nga xam ni jàmm joo xam ni war nañ ko ci mën a liggéey rek loolu mën a am. lu jëm si wàllub élection présidentielle 2024 ànd jëf dafa fas yéene xaar ba mbiru candidature yi leer ngir jël décision ci mbirum élection présidentielle yi nga xam ne nag moo di ñëw élection 2024 yi euh, dañoo ne élection yooyu daal élection yu am solo la. waaye nag élection yooyu mathématiquement dañu daal équation ba am ay inconnu yu bëri. que dara leeragu ci parti bi dinañu jox yoon boo xam ne nii fu ñu war a teg suñ tànk ni war a def dégg nga en attendant loolu mbir yooyu war a euh, ba mbir yooyu leer. ànd jëf PADS fas yéene jógaat loolu waxal dinañ amal ab congrès ci njeexeelu at mi ci boobule congrès dinañ ci yeesalaat seeni instance te nag dinañ gën a bàyyi xel ndaw ñi.